المسجد وتاريخه ومؤسسه والعدد الذي يصلي فيه الجمعة أسبوعيا واهتمام الخليفة بالمسجد وهو دائما يحضر بنفسه يوم الجمعة يوم الجمعة دائما هو بنفسه يحضر صلاة الجمعة هكذا عادة الخلفاء السابقين كذلك يهتمون بالصلاة لأن الشيخ بنفسه كان يهتم كثيرا بالصلاة ويأمر أتباعه بعدم الإفراط في الصلاة الركن الثاني فلذلك المريدون الملتزمون الذين يعرفون تعاليم الشيخ يلتزمون بالصلاة حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم من تركها من تركها فقد من فقد ترك الدين هكذا فقد ترك الدين نعم ليس بناء البيوت فهناك وليس غريب ان الناس احنا المسلمين لازم نهتم بالصلاه لان الركن الثاني آه. عماد الدين آه. وكان هناك واحد من شيخ الازهر الدكتور عبد الله محمود رحمه الله عليه جاء الى المسجد هنا وصلى ثم بعد ذلك خرج وراى البيوت حوله وقال كيف كيف هؤلاء يبنون مثل هذا المسجد القيم وبيوتهم هكذا متواضعة فهؤلاء يحبون الله ويحبون الرسول ويهتمون المسلمين الحق المسلمين الحق هكذا كان جميع المشايخ الذين يأتون لزيارة المسجد ينظرون إليه ونحن نريد الآن ملاحظاتك و أول شيء أنا صراحة سعيد بزيارة المسجد ويعتبر تحفة عمرانية والمسجد هو أساس الإسلام يعني المسلمين كلهم انطلقوا من المسجد اجتماعاتهم لقاءاتهم فسروا mu ne kontaan na lool ci ñëw gi mu ñëw fii surtout nag bi mu ñëwee ci jumaa ji nee na lii aar la bi muy jàkka la dëgg la waaye dafa nekk dafa aaree ci bopp ci rafetaay bi yaatuwaay bi melo yi dafa nekk lu am solo loo ku fi dikk fokk li lay jëkk impressionné mooy loolu mm-hmm. wal ihtimam bil al haqq نحن نرى عمارة المساجد حول العالم الإسلامي والمساجد بيت mu ne ba tey eh, kuy dundal jàkka surtout nag jàkka ju doon nii nga tabax def ci alal ju tol ni ñi ñu ci def loolu lu muy tegtale mooy tegtale ne ñii de yàlla rek lañ bëgg ñii de yàlla ñor na leen waaw loolu it moo tax ñoom ci Arabie Saoudite ñu ittoo di tabax ay jàkk fépp ci àdduna si wal masjid laysa eh, makaan ibaada faqat lakin makaan taalum ad-din makaan wa kaan yustaxdam ka maktaba eh, wa ka maxkama wa daar lil ilm وهو الحياة اللي في المسجد الناس العابدون الطائعون اللي يعبدون الله في المساجد هم الحياة هناك كثير من المباني لا يوجد فيها حياة لكن المساجد فيها حياة لأن فيها التسبيح وفيها الصلاة mu ne <clears throat> jàkka du rek barab boo xam ne dañuy jikk rek wax allahu akbar rek julli mu jeex jàkka dafa war a nekk foo xam ne dañ fay jàng dafa jëlee xam-xam jàkka dafa war a nekk barab boo xam ne lépp lu ñuy lijjanti ci kaw ci biir dëkk fa koy lijjantee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la meloon mu na jàkka it dafa war nekk foo xam ne mooy barab bi nit di dundee dëgg dëgg dëgg ndax nit mën naa nekk ci këram ti du ndax fépp foo xam ne nekkoo fa di jaamu yàlla nekkoo fa di tudd yàlla nekkoo fa di nekk ci sa diggante ak sa borom rek na nga xam ne foofa dund nekko fa waaye boo dikkee ci jàkka ji nag da ngay dund ndax yaa ngi sikkar yaa ngi julli yaa ngi jàng alquran loolu mooy dund وإحنا في المملكة العربية السعودية بقيادة حكامنا من عهد الملك عبد العزيز اهتمينا ببناء المساجد وتوسعة الحرمين الآن المسجد الحرامي اتسع تقريبا إلى 2 مليون ونص نعم. المسجد النبوي عمارته كل من ذهب هناك رأى العمارة نعم. نحن كمسلمين الحق لابد أن نهتم بالمساجد وهذا ما فعله حكامنا هناك moo tax sunu kilifa yi nekk ci Arabie Saoudite seen itte jëm ci defaraat euh, masjidil haram ba mu mel nii mu mel nga xam ne waxtu bu nekk ñi ngi koy gën a euh, defar muy gën a dëppook jamono ne seen mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo fa nekk ñëpp loolu seen itte la euh, ki nga xam ne mooy buuru mamlakal arabi saoudite di xaadimul haramayn sharifayn ak ñi nga xam ne ñooy xukuma gouvernement arabi saoudite loolu dafa nekk seen itte di ko def ci biir arabi saoudite waaye di ko def ci bitti Arabie Saoudite fépp foo xam ne rek soxla nañ ko te ñu mën ko dañ ko commandé wa daa'iman al-muslimiina al-haqq hum yahtamuun bi imaarati al-masaajid mu ne kama xasala fi indana fi al-mamlaka hukkaamuna wa hina fi Tuuba day ittoo jàkka Sénégal ni ñu ko defee fee ci Makka defee ko fii ci Sénégal loolu lépp dafay wane ne ab jullit dafa war a yittewoo juma ak jàkk shukran shukran Ah, ah, ah. كان له أم solo ci biir Sénégal waaye ci àdduna sépp وطلعت على طريقة طرحه وشرحه للدين المبسط xool na itam gis na Sëñ Tuubaa ni muy jàngalee diine ni mu koy leeralee ba doomu aadama mën koo xam ومن الأطفال إلى الشيوخ والنسوان boo xam ne da koy tàmbalee ci gone yu ndaw yi ba ci mag ñi ba ci waxambaane yi ba ci ñëpp وهذا صرح عظيم loolu nag lu rëy la wa yuxbat alayhi ahlu Tuuba leen na nun ñu ngi leen di ñëw yéen waa Tuuba ci lii ñeen nañ leen ci lii maktaba qayma bithara almaarifi walilmi waddiini fiiha fii dafa riche lépp lu nga xam ne wàllu xam-xam yaxbutuuna war a xam ne lépp rek mi ngi fi yaxbutuunahum alayhim ahlu al-amsaar wa ahlu al-buldaan al-islaamiyya al-uxraa te loolu sax moo leen di boole ak yeneen réewi lislaam yi ñu liggéey foofu yëpp day mel ne ñëpp a ngi fi shukran amiin

Amen. رفيعا لقيا ما